ayca ñu doxal yëg ci kaw tribune bi. aywa nee nañu ndong ci kaw. benn événement ñaari date. bu mu doon mais nag nee nañ tabaski ñetti fan la ah. oui voilà. nee nañ tabaski soixante-douze heures la boo amul boo euh, premier jour mën nga am deuxième jour boo amul deuxième jour mën nga am troisième jour. kañ la ñuy woor arafa jour titulaire nag. waaw c'est vrai mais ñett yëpp dagan na. waaw mais am na jour jour la d'accord kañ mooy arafa. kan kan la Arafa ah? c'est samedi je pense. Ah, déjà que li Asma laajte rek lu lu am solo la. Mhm. kañ mooy Arafa. Mhm. Arafa c'est le samedi. samedi te xam nañu ne diine. boo Arafa boo xëyee danga war a da ngaa war a tabaski. waaw loolu la mm. mooy diine. loolu mooy islam léegi nag a ah, fii Sénégal nag moom. ñu daal da ngay ñaari dates. waaw ñaari léegi nag léegi est-ce que ñun dañuy jënd ñaari xar wala. non non mënoo jël parce que boo xasee ah, ba tabaski ñi tabaski dimanche <laughs> tabaski lañu ñi tabaski mais mën nga waaw mais mën nga tabaski dimanche mën nga tabaski dimanche nga tabaski tamit lundi garaawul boo ko amee def ko ah y de souci mais ñaari xa defar <laughs> ah. <laughs> mais en tout cas tabaski fii ci Sénégal daanaka ñaari data nu am loolu nag dafa war a jeex quand même ñi am benn date seen yëfa ñun am nañ suñu ñaari date kon ku nekk sa date muy clair. bëgg romo ku nekk ak sa date. polémique autour d'une date en tout cas korité bi nag ñëpp amoon tàcc woon nañu parce que gis nañu ñoo jullindoo ci li nga xam ne moom mooy euh, même jour umandoo jullindoo euh, ci li nga xam ne moom mooy si euh, korité gi ñu yaakaaroon ne dina continuer noonu mais malheureusement coordination des musulmans du Sénégal ñoom la 16 juin la ñu wax démb mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ngalloo seentu weer bi tënku ci Konakok ñoom nee nañ le 17 donc le 16 mooy dimanche le 17 mooy lundi euh, ñaar yooyu yëpp ñii nee mooy seen tabaski ñii itam nee nañ mooy mooy seen tabaski tribune yéene kaay ne coow li coow li te bëgguma di wax ci moom mais fa mu wax ci moom mooy Juan Branco Juan Jean Juan Branco désavoue lu ko metti ci ñoom ah ah am na lu ko metti de leeral ci suuf ceux qui ont commis les crimes sont toujours là nee na li nga ñi nga xam ne ñoo def njombeli faatoog ba kenn bu sàkkan bi li ñu dund tëjum kaso bi magasin yi ñuy yàq cocktail molotov yi parce que ñu ah. dégg nañ ci lu ne ah cocktail molotov cocktail molotov ak ñan des na force euh, spéciale force dégg nañ ko fi non dégg nañ ci baat bu ne mm-hmm. non mais tàngoon na nag mais ana loi d'amnistie bi ah waaw il doit on doit le briefer il y a une loi d'amnistie tontu laa ngi noonu loolooy tontu bi fu mu nekk xwaan nga tontu ah. jeex leen yéen noo leen mën a seetaane lii moom xawaan ñi def jëf ji ba pare. gàttaayam tuuti waay dawlu dikkulu toog ci réew mi xawaan na li ma ci gën a metti nag mooy ki nga xam ne moo organisé loolu yëpp. Mhm. celui qui a ordonné que la mort se répande donc a été en mesure de quitter le territoire. et de jouir de son impunité. il fait allusion à qui? ni trompette mu takk ay bagages jël vol bi génn réew mi. il parle de qui là. ah kii kay Macky lay wax ah moom Macky lay waxal xam naa. <laughs> nee na ko comment Macky tontu na la comment Macky Sall a-t-il pu payer un jet privé. moom nag il a des comptes à régler avec le président Macky Sall. fekk moom xawaan sax man dama am envie ne ko yow. de quoi je me mêle. il s'est fait une notoriété ici mais. Euh, waaw moo di lijjanti si mu ne. où sont les autres avocats d'Ousmane Sonko d'antan ay maître euh, Ciré Clédor. ils sont tous Ciré Clédor maître Bamba Cissé. ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom le combat est fini ils sont restés dans leur rôle d'avocat donc celui-ci là il veut se faire juste une bonne presse au Sénégal. ñoom bi ñu jeexalee seen combat ñoom maître Bamba Cissé ah mm-hmm. Ciré Clédor mm-hmm. mais ñooñu bi ñu defee seen combat après est-ce que dégâts daanaka le combat est fini. pratiquement dégâts leen de à ah part bi ñu tegee peut-être maître Bamba mais je pense que moom ak euh, moo accompagné keroog. kii ci conférence bi c'était normal vu que dañoo porté woon combat c'est ça mais tenirul discours non non non tenirul discours dis tenirul discours bi. un discours plutôt politique. ñi fi nekkoon lu tax ngeen ni bàyyi ñu dem mais potum biir la bàyyi leen ak seen réew ñu lijjanti lu ñu. mais on a envie de lui dire lu sayoon. <laughs> vous restez dans un système dominé par ceux qui hier vous réprimaient et aujourd'hui continuent encore mi ngi dugg seen caay moom nii xool dañoo mën teraanga dafa bëgg ñi fi jóge ñu ngi exploité ba léegi. waaw nee na leen yéen ñaar ñii. kon maanaam ñi ñu jiite amuñu poigne loolu bëgg a wax. loolu que moom ni mu wax leer. yëpp na leen de ah. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci seen système teg leen lu tar teg leen lu metti dundaloo leen loo xam ne mësu leen ko dund tey jii ñoo nekk a tax yéen àndax yéen di gérer. ndax bi muy wax loolu dañ koo tàccu. xam naa tàcc na moom daa fàtte ni système bi ensemble léegi dafa bëgg gars yi ñëw rek bale ñëpp sous préfet préfet ah, gouverneur ñun agent yëpp bale ñëpp yoo xam ne footum biir na ah, loolu mënu la waan loolu nit ki moo xam nu muy euh, euh, euh, wuccaxee bopp jënam bien sûr président basiru Diomaye Faye moom la ñu tànn mooy doxal daan tànn ñu ko mhm. ça c'est clair donc président Bassirou Diomaye mooy xam nu muy gérer moo xam ki ko doy moo xam ñu mu fës ne àndal di liggéey te mi ngi liggéey nañ ko bàyyi moom bëgg ko perturbé sama yoon nekkul ci yow nag. wax dëgg li ñu bind rek laa wax. Seydi Gassama expose les euh, conditionnalités jëm ci exploitation zircon ak li nga xam ne moom mooy euh, nefran bi Ziguinchor teg nañu loxo benn présumé meurtrier bu Jeeju euh, yéenekaay bi daal dina ci dikk buñ dikkee ba tey ci mbirum xaar bi ñu doon wax sànq Sud Quotidien nee na tabaski 2024 à double vitesse góorgóorlu cherche encore son mouton wax nañ dëgg nag. y a mhm. am na sa benn xarit moo doon waxal sànq ni ñu ngi doon message ante nee na foofee Tambacounda il faut nga dem ba ci àll bi ci frontière ba. Mhm. maanaam xar moo xam ne quatre-vingt mille lay jaar. waaw. xaar bu baax quoi. quatre-vingt waaw. pour nga mën a am xar boo xam ne quatre-vingt mille lay jaar. imaginer mais léegi imaginer mu war a jóge. Tambacounda ñëw Dakar ñëw Dakar. transport bi cent et quelque la de. Ah. non boobu day dem boobu day dem ba cent cinquante mille. cent cinquante jëm kaw. te c'est des moutons modestes quoi. moo tax ñun góorgóorlu yi fu mu nekk ñoo ngi xool suñu xar moom la ñuy wër. ah man de maa ngi man de maa ngi buum. am nga buum. waaw ak paaka. waaw très bien directeur yow nag. ah directeur yow boo amul sama la jox sama boss. ah kon de fu mu nekk nii affaire bi daa tardé. waaw yow moom boo amul sama la jox sama boss. <laughs> ba may leen ay engagement loolal la engagement wala promesse. yow sa yoon nekku si. engagement la en direct. ah c' est une promesse en direct. en la maa ngi nii ko wax. sama njiitu réew mi njiitu réew mi njiitu réew mi. suñu waa boo gisul sa bopp rek sa xar jàpp na la fi engagé wu. yëpp ko madame amul problème. je vais mu njiitu réew mi njiitu réew mi fii la fi engagé wu. ne day rocceeku. moo tax mu ne parole de. parole engagement la moo gën a fort. promesse parole de xam ne li muy. moo ngi nii rassuré nañ ñu ni kon marché bi approvisionnement bi dana mu ngi ci yoon lépp dina am mais ba fii nag wax fa dëgg neex yàlla njëkk cher de la tabaski ah dafa metti ba fii nii ñu bëri dañoo tiit nee nañ est-ce que xar même bu amee euh, dina accessible maanaam ndax njëg li dana yóbbu ci ci ñëpp dana metti lool nag parce que ñu bëri dañoo njort ni peut-être pour nga am xar mu xaw a tane sang euh, yi daal dana teg te loolu ah l'info ma dem l'info ana l'info l'info nga bëgg waaw parce que l'info ak Walf Quotidien ñoo bokk li ñu titré tey jii audience entre le président Bassirou Diomaye Faye et Tony Blair quand Pastef ravale son vomi ndax nag nañ waxante dëgg ñoom waa Pastef am lu ñu fi yàqul woon ci ah oui euh, euh, euh, Tony Blair oh. ratew ñu ko woon mm-hmm. waa ni dan moo naqadi woon démb tey mu neex ba ñu war koo mën a dalal réalité loolu mooy laaj rejeté hier et même voué lan Gémeaux donc par le PASTEF l'ex-premier ministre britannique Tony Blair reçu en audience avant-hier par le président Bassirou Diomaye Faye et aujourd'hui adulé par le même PASTEF qui rabale ainsi son vomi l'info yéene kaay moo joxe boobu lépp xibaar du samay kàddu Ousmane Sonko euh, euh, lu mu fi moo di Tony Blair était à de la guerre d'Irak parce qu'il était celui qui tenait l'hypothèse d'armes nucléaires dont Saddam Hussein se serait donc doté ce qui s'est révélé faux moom la Walf Quotidien andi Sonko critique Blair jomaay le reçoit le passé présent de Pastef mhm. la ñu bañoon démb moom la ñu nangu tey jii peut-être les réalités du ñu benn les réalités du pouvoir ñooñu ñu doon wax bu njëkk ba peut-être mooy opposition bi ñoom opposant casquette pouvoir daa am réalité mais boo xësee ba toog ci nguur gi da nga xam ne pouvoir dafa am ay réalité yii waaw am na ñu doon bañ fii ne réalité du pouvoir loolu amul ah mais nag dañ nangu léegi réalité du pouvoir am na. li mooy réalité du pouvoir da ngay ñëw di gérer da ngay li fiy fekk da ngay xam tu es obligé nga doxalee noonu. Guy Marius Sagna fekk Sénégalais si Alioune moo wax démb. Mhm. gars yi mayuñu ko dara. rafet ñu ko def ndax li mu wax fi ñu jëm état passé fi lay xëy. Mhm. moo ko wax Alioune Tine. le quotidien yéen a kaay ne Guy Marius Sagna l'honorable wax na on changé de président de PM mais le système est toujours là looñu ci xalaat. ah waaw mais ça c'est dëgg la. système bi ah. ba tey mi ngi fi. ah système ba tey mi ngi fi parce que déjà que. mais mais moi j'ai envie que ñu laaj leen ñoom lan la ñu bëgg quoi est-ce que pour que système bi jóge fii qu'est-ce qu'ils veulent quoi. lan ah. la exactement quoi parce que. rupture bi ñu bëgg. waaw rupture bi ñu bëgg quoi. il faut que ñu laaj leen ban rupture la bëgg ndax dañuy balayer même les gens qui étaient là avant avec euh, l'ancien régime ñun ñëpp lañ leen di dindi ñoo xam ne dëgg porté nañu combat bi non mais non non je mm. nekk ci administration bi ñoom ñëpp dañ leen di balayer waaw andiwaat ñeneen ñu man man je ne comprends pas quoi manul ne ah man je ne comprends pas ko a ah, doxalin bi tamit mënoo ko changer en claquement de doigts doxalin baguette magique amu fi boo xam ne il faut mu am ay ab diir quoi. bés bi la jour dafa ñëw ci dossier bu am solo la tragédie des enfants parce que nag dañuy gis takk suuf bu amee wala sëy bu tas souvent parents yi xale yi ñoom ñooy souffrir. rawatina takk suuf. bien sûr uyul li mu wax mais enfants ont connu leur frère consanguin le jour de l'enterrement de leur père. parce que takk suuf la boo amee takk suuf daanaka boo ci amee doom doo bëgg ñaari famille xamante. parce que oh. takk suuf la loo def ci suuf. te loolu bëggoo mu jëm kaw. te loolu a na danger de. waaw léegi moom bi mu faatoo nag. njaboot gi daje mm-hmm. loolu am na ay danger yu bëri de. danger mais sa doom mën nañ bëggante. bien parce que deret dafay xëcc morom. bien sûr lu dagg lu ne morom ba lay am na si un jour nos enfants entretiennent donc une relation amoureuse moom la ñuy wax. voilà les dégâts du takk suuf. eh ci dafa xew nag. yee. Hmm. ah hmm. suuf. dafa xew. ay prétexte yu ay kilifa laa instant yi mënumaa tas suma kër. nangam na wala ñu nax la ne la bëgguma ko la liggéey xam nga jigéen ñi nangam nangam. yéen a yéen da ngeen doy waar la non xoolal deux mois la même deux mois rek après ñu ñu siwal ko nañ ko def ci suuf deux mois rek après ñu ko garaawul. xam nga moom nag exemple yi mois deux mois nga nga jël ëmb. jigéen ñi tamit bàyyi ba nga am doom bàyyi ba nga am ko. nga am doom bu xoolal boo xefee mu tegaat la bal bi. Ah. noonu lañ koy teg looy def balaa muy siiw. léegi <laughs> yow kan ngay lu tax ngay jël ci man exemple. non yow. nga foog sa takku suuf bi. te Mame Mbaye. wax naa ko madame de. le comble vous vous connaissez ah. le comble dans ça c'est que tu retrouves des femmes instruites. des mm-hmm. femmes peut la ñoo koy nangu léegi ba même ci suñu nii. da ngay gis ñoo xamante ni dañu leen tak takk suuf. mais bu jeexee dañuy taxaw noonu j'ai plus de mari mais tu ma belle. Mm, un mari qui t'assume. t'as jamais mais da ngay boo xamante ne day ñëw ne takk ma takk suuf am na fi. am na fi. Ah waaw bu ko kenn yee. non graal xemem non graal man moom boo ma takkee tak suuf. takk suuf bëgg naa ay waay. Mm-hmm. eh Mame Mbaye. sa kër ngay ñibbi de ci weekend nga nekk boo ma takkee takk suuf sax man bëgg naa. ah peut-être <laughs> ñoom après ndaw si dina jël ay précaution ba nga xam ne doom du ci judd wala peut-être meet la appaa la bu mu la tegal boo xësee ba takk doom si doom siw wala boo koy takk après muy siw waaw non non dañoo koy tay def doom pour que après bon doom dafa jege xool waajur ba duñ la bootal après day siw mënoo ci dara looy def ci suuf te nga koo def ci kaw def ko ci kaw mu jeex sinéoo mënoo mu jeex une bonne fois des fois nag nga ñëw fekk couple yoo xamante ni def nañ am nañ deux ménages nga war a nekk troisième ménage waaw c'est pas évident. waaw mais bon nangu rek am nga droit am ba trois quatre. ah yow boo ñëwee fekk nga waaj kay xam nga ne leer na ne am na deux ménages kay kon bul bul ànd ak moom bay dara di ci. dëgg la yaa dëgg man nan ko yoo la àndal. d'accord ci man. ah euh, sunu euh, conseil. oui ah. activiste artistique euh, et culturel mm. la gestion du FOPICA mooy fond bi nga xam ne moom la ñu leen jàkkleel nee na problématique la le sport a tendance à la culture et la jeunesse on se demande si on a une vision culturelle euh, moom nag lecture la bu nga xam ne def nañ ko. ci Régina Sambou qui est la petite sœur de Natacha Sambou qui est une ah. grande sœur à moi. ah ma neex. oui. ma neex elle est brave. elle est très brave. elle est très brave déterminée la la moom votre numéro de compte s'il vous plaît 4 6 8 mooy ñi di fay ko ñaari yoon ñetti yoon wala ñeenti yoon. <laughs> Ah. gâché le deal. le deal. parce que def ne ko pas si fort. c' est confidentiel ah pas si fort maanaam bu mu jëm kaw. c' est comme si li ma comprendre mooy parfois de am ñu dem nekk banque di di déglu. Ah. le numéro de euh, code ñeent. ah di ko wax ci kaw voler le ah. ko waa di wax ci kaw kon kay da doon jël moom it. waaw code bi la doon jël. da doon jël. Euh, votre numéro de compte ah c' vrai. parce que yenn yenn kii c'est confidentiel yenn kii accord am <laughs> parfois également banque yi dañuy gis ñoom dañuy ñëw mais uniquement pour def ñu benn transaction de bu ñu la gisee nga ñu woo la ñu ne la Mambay comme comme que Mambay benn 10 millions lay récupère xam ne lay dugal ci rox waaw ah. après léegi ñu signal def signal ba. ñu signal envoyé message bi la sol sac bu mel nii la yor. réew mi lépp a ngi fi sa ginnaaw. yàlla baax na. en tout